TV ki mu andil tey nii ah, andil naa leen client de client bu analyste bu mot analyste. kii mooy Pape Diagne Seras Pape Diagne Seras mun nga présenter yooyu ay kat tuuti. waaw Pape Diagne Seras président des managers de Louga. waaw maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu manager yëpp. waaw di nuyu waa Louga yëpp. dëgg la di sant yàlla bu baax di julli ci yonentam bi. di gërëm sama ñaari waajur. di sant sama sëriñ ba Seydou Mamadou Mansour Sall. xalifa sëriñ Abbas di ñaan yàlla yokki leeram. xalifa bi fi nekk Cheikh Amadou Niane Sall yàlla may fan guddi yàlla may ko wér. dëgg la mais da ngaa bëggoon tay sa loolu. waaw sama xarit ba tay tay laa ko gën a bëgg. tay ko gën a bëgg sama xarit sama lépp. Ah. tay laa ko gën a bëgg. sama ah. jàpp di bàyyi. moo tax tay Tyson mooy sa roi des arènes. wallaay laa si ba léegi mooy sama roi des arènes. bu bu jour bu jour bu muy daan maa nga doon lan nga def. bi mu daanee maa nga dama doxee stade Léopold Sédar ba Thiaroye. déedéet kay. am mbégte boo xam ne du ma ko fàtte mukk. Ah. mu ma bégal. Ah. ni nit ku baax doo ko dégg ci dara loo koy xeebe. dëgg sama. maanaam nu ñu koy waxee maanaam sama idol la sama lépp la lu bari ci moom laa koy xool parce que doo ko dégg ci lu bari muy nit bu baax galu fi mu galu yàlla ko yàlla may fana ko ak wér est-ce que mos na la recevoir bu ngeen toog waxtaan waaw ñëw nañ ba tàyyi recevoir ñëw yenn këram aje ndoog moom waxtaan ndoog moom ànd ak soxnaam ni ma lan nga bëgg ma toogal la ko mu naas muy ku baax di leen ñaanal ñu am njaboot bu barkeel vraiment muy nit ku baax nit ku julite di nit ku baax a baax wax dëgg yàlla sama xarit séparation ba Eumeu Sène xanaa ah, doxoon doxoon nga si jéego waaw def naa ci jéego mais waaw yàlla na yàlla defal jàmm parce que ama seen bul fàtte moom it seeraas dafa joué ci carrière lu bari dafa daan ñëw ci sama papa di tëdd ci njoowaanam di fa tëdd ma ànd ak ci lamb yu bëree bëree bëri moom mi ngi gri falay barde mu nekk na fa ñoom dem si yàlla Moussa Diouf ñu partage lu bëree bëree bëri muy diggante boo xam ni wax naa ci ba bëri mais daaw ma génn di wax ci média mais doon naa wax ci suuf mais nag damay wax toujours rek ànd am na tàggoo am na mais tàggoo bu rafet mooy lépp ci àdduna loo gis day jeex yàlla yàlla defal jàmm Euh, franc soq. combat bu neex. lu tax mu neex. franc maa ko njëkk a jox avance 40 000 francs. déedéet moo kat. muy prince Sissoko. waaw mu bëre Diène Bambulaan mu Seras. dëgg la grand combat ba mi ngi nekkoon. Koña ak Diène Kairé. 2013 ci la war a soog ba rek tey seen ci gindi leew waaw keroog nag kat li bëri ak may ci bëri a bëri ni góor a soog xale bi di François Émile Gomis bu guddee fan làmb dina ko dégg waaye sox dafa judd ci kër fekk njàmbur ci biir kër muy cat li di magam di daanalu bëri kat ah, ah. kon moom dafa jug rek fekk jàppale ci kër gi su bëree mbër la su bëriwul mbër la muy champion bu mag moom it ah. def bu rëy rëy ba gis nga barki Dembo Njaay digganteem ak Gamou Gueye ah. muy combat bu neex ah. mu daan ko jël bu gaaw bu arbitre bi sifflé génn seen diggante waaw ñoom ñaar ba du sifflé génn seen diggante da ngay gis combat bu neex parce que nag ku avantage ci combat bi François Émile Gomis mbëru mbapat la ku mu jàpp avantage mooy jàppam soq li ma koy digal ci combat bi mooy mu xeex te duñ ko jàpp andi xeex boo xam ne ba mu dalee bëre ba léegi kenn mësu koo gis parce que bul fàtte ni Franc dafa mën a mbapat ba pare yàgg bëree ci lutte traditionnelle yi. waaw di ko jël at yu bëree bëri. waaw muy combat boo ñoom ñaar ku ci daal. waaw diggante Reug Reug ak Sa kenn mënu laa bañ. déedéet jëm parce que ay espoir lamb lañu. fa xaw a manqué waaw favori ci combat bi nag Franc mooy favori mais légèrement. légèrement du à 100 pour cent quoi. Ah. lamb bu lu ñàkk favori favori rek ça veut dire que mooy. Ah. kii daal mais mooy favori. mais du à 100 pour cent. bu doon tey favori dama naan Franc bu doon 100 la moom moom moom mooy astafurlah moom moom 45 ou 50. wala 60 yi rek. mais moom mooy favori. combat neex la. combat bu neex la. Ah. soq combat bi ah. mooy bagaar xañ franc mu jàpp. Ah. jeex combat boo xam ne dafay combat boo xam ne doo gaaw a parce que booy fàttali franc mën na bëre. combat bu yàgg bu fàttali moom njaga doole. li muy daan njaga njaga mu jàgg sonn. kon soq bu condition physique am doyee. mu andi bagaar bu wér. lu muy def mu teg ci yoon. mën na